الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان نحن مقبولون على الشهر العظيم ألا وهو شهر رمضان وما أدراك ما شهر رمضان شهر البر والإحسان شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره اتق من النار شهر تمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقاءه إذ قال في دعائه اللهم بارك لنا في رجب والشعبان وبلغنا الرمضان بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko sunu xutba mooy xamsa waqafaat qabla xululi shahri ramadan juróomi taxawaay yu ab jullit war a taxaw seetlu ci ay mbiram balaa weeru koor ñëw sikki nekk ci ne ñoo ngi jublu weeru koor lan mooy weeru koor weer woo xam ne weeru njëkk la ak rafet rafetal weer woo xam ne njëlbeen biir yërmande la digg bi njéggal la mujj ga goreel sa bopp la ci safara weer woo xam ne yonent alayhi salaatu wasalaam mébétoon na fekke ko bay ñaan sax moom yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne yow yàlla ñoo ngi lay ñaan nga defal ñu barke ci weeru rajab ak shaaban waaye yow yàlla noo ngi lay ñaan nga may nu nu fekkee ramadan boobu ñu ngi ci shaaban rajab di waaj a jeex wala jeex shaaban di dugg yonent alayhi salaatu wasalaam di won jullit yi weer wi ci tegu yan njëriñ ak màggaay gi mu màgg mu ne yow yàlla sunu boroom subhanahu wa taala maa ngi lay ñaan nga defal ñu barke ci shaaba rajab ak shaabaan waaye nga may nu fekke weeru koor mbokk jullit yi weeru koor weeru muñ la weeru topp yàlla weer woo xam ne ab jullit dafay delluwaat ci boroom boroomam ci fàttaliku ak di ko tudd looloo tax weer bi du ñëw bay jeex di tàggu ab jullit lu dul jullit boobu dana yëg ci xelam ak xolam naqar bu fekkee ab jullit la laa wax weeru koor du ñëw bay jeex ci jaam bu baax lu dul jaam boobu dina yëg xat-xat ci weer wi tàggu gum koy tàggu mbokki jullit yi ñaata nit ci ñun ñoo dugg ci weeru koor fekk ba nu avant weer wi danoo sori woon yàlla waaye ba ñuy dugg ci weer wi ba weer wi jeex ñu mujj nekk ñu jege yàlla ñaata ci ñun ñu ñu xañoon ba weer wi jeex yàlla jox leen ñaata ñun ci ñun ñu defoon ay bàkkaar balaa weer wi di jeex yàlla jéggal leen looloo tax ñu war a taxaw juróomi taxawaay xamsa waqafaat qabla xururi saxri ramadan juróomi taxawaay yoo xam ne ab jullit war na ko taxaw su ko yàlla dimbalee mu fekkee weeru koor alwaqfatul ula taxawaay bu njëkk bi mbokki jullit yi su weeru koor ñëwee nga teg sa tànk ci première bis bi li war ci yow njëkk mooy nga sant yàlla ana ñi nga waroon daaw ñaata ci ñoom ñoo fi nekkul wala ñi wooroon ñëpp ñoo wooraat ren ñoo nar a wooraat tont bi mooy déedéet kon yow mi gëm yàlla subhanahu wa taala su la sunu boroom dimbalee ci kàttanam ak mën-mënam ba nga fekke weeru koor li war a njëkk ci yow mooy nga sant xéewal bi la yàlla defal mooy fekke waat nga ren weeru koor loolu na xéewal la gu rëy goo xam ne yàlla moo la ko defal subhanahu wa taala sunu boroom du say kër-këri du sa doole du sa njàmbaar du sa xam-xam du sa mën-mën du sa kàttan yàlla ci boppam moom la neex nga fekke waat weer wi ñamule ñamu yóbbu ëppoo leen doole ëppoo leen xam-xam ëppoo leen alal ëppoo leen kàttan ëppoo leen mën-mën waaye moom yàlla ci coobareem moom moo xamoon ne ñooñu loolu la ñuy dund seen dund jeex mu daal leen di yóbbu kon yow santal yàlla yow mi ko fekk mbokki jullit yi tazakkar na tazakkar ni'matun min allah asdaha ilayna wa minnatun min allahi awlaha ilayk هذه النعمة أن بلغك الله شهر رمضان xéewal bi gën a rëy ci jullit boo xam ne yàlla sëmbartal na ko ci moom yàlla may ko gudd fan ak fekke weeru koor xéewal gënu koo rëy ku yàlla dundal weeru koor ba weeru koor ñëwaat nga fekke ko amul xéewal gu gën a rëy ci kaw suuf bu nit am bu la ëppale yow kam min qulubin hannat wastaaqat ila liqaa'i hadha sahr walakin inqata'a bihi alqadr ñaata nit ñoo am ay projet fekkewaat weer wii di weeru koor waaye ndeysaan mbokk yi ñu ñu day malakal mawt loolu ñu naan dee yóbbu na leen ba fekke wuñ ko ña nga ca bàmmeel yi tey ña nga ca suufa suuf sa sax yaag giit yaag jaan yaa ña ngay xëccoo seeni yaram ya kon yow doomu ndey mbokk jullit iza balagta shahru ramadan bu la yàlla maye nga fekke weeru koor fa tazakkar minnatullahi aleyk xalaatal xéewal gi la yàlla defal wa ahmadullah ala alwusuli walbuluug xalaatal bu baax fàttalikul santal yàlla ci egsi bi mu egsi ci yow ak fekke gi nga ko fekk wa qul billisaani alxaali walmaqaal allahuma laka alhamdu ala an ballagtani ramadan laa uxsi sanaan aleyk fexeel ba bis boo fekkee weeru koor ñaanal ñaan bii yow yàlla laka alhamd sant ñeel na la ndax yaa ma may ma fekke weeru koor yow yàlla bu ma doon lim xéewal yi nga ma defal duma ko mën a takk képp ci ñun ku fekke weeru koor war ngaa ñaan ñaan bi allahumma laka alhamd ala an ballagtani ramadan la uhsi sanaan aleyk saa yoo waxee ñaan bi ba pare sant yàlla subhanahu wa taala ñeel na la ndax yàlla nee na bu ngeen ma santee ma dolli leen mbokk yi loolu mooy taxawaay bu njëkk bu ñu war a taxaw bu nu yàlla dimbalee ba nu fekke weeru koor ñaareelu taxawaay aqdu niya ala silaahi alqawlu wal amal nanu yee salaat yéene yi nanu bee salaat yéene sunu digganteeg sunu boroom sunuy wax ak sunu jëf ci njëlbeenu weeru koor kenn ku nekk ci ñun bu la yàlla dimbalee ba nga fekke weeru koor beesaloo sa yéene sa digganteeg sa borom ne damay jaamu yàlla lu dul sa pas-pas mooy naa ko dóor mu daanu 30 jours kese la wala 29 naa góorgóorlu rek jeex na naa takku ànd ak nit ñi rek bu weeru koor di jeex doo ci jële lu dul xiif ak mar kon nañu beesalaat yéene yi waxaat ak sunu boroom jokkoo ak moom xam ko ne moo nuy jaamuloo nuy ay jaam ñuy jaamu faltakun bidayatu hadha sahr azmun baynaka wa bayna allah على المسير إليه والتقرب إليه بالطاعة وذكره وحسن عبادته mbokk jullit yi na nekk sunu digganteeg sunu boroom ci njëlbeenu weer wi sa yéene mooy jóg naa maa ngi jëm ci sama boroom dama koy jaamu ngir jege ko ci topp ko moom yàlla ci sant ko ak bàkk ko ak topp ko pour ma jege ko wa hada yanbaghi wa hada amrun yanbaghi an yatazakkara min bidayati hada sahar loolu dafa war ci njëlbeenu weer wi suñ demee ba weer wi jeex ramadan di dugg nga yee salaat yéene sa digganteeg sa boroom ci yee salaat say wax ak ki jëf kam min unaasin adraku shahr ramadan wa adraku yawman aw yawmayni walakin ixtaramathumu almaniya qabla bulugi axiri hada shahr am na ñoo xam ne sunu borom subhanahu wa taala dina leen dimbali ñu préparer lépp yeesal seen digganteeg seen borom benn fan ñaari fan yàlla dimbali leen ñu faatu ñaari fan lañ am waaye yàlla da leen di fay weer lu tax parce que seen yéene la leen yàlla di fay loolu tax bu weer wi dugg boroom xam-xam yi di wax ne da ngay yéene wóor lépp waaye guddi gu nekk nga yiyee salaat saa yoo ndogoo ba war a naafi la nga yéene waat waaw di bee salaat yéene yi guddi gu nekk waaye yéene bu njëkk ba rek mooy li gën a wér bu nee weer yi feeñ na bismillah nga yéene sa digganteeg sa borom woor weer yi ba mu jeex takk bu la yàlla dimbalee nga def ko fa lillahi alhamd yàlla dina la fay bu la yàlla nattoo ci diggante bi ndogalam ñëw walla walla sunu borom subhanahu wa taala dina la fay sa yéene subhanahu wa taala sunu borom mbokk jullit yi ñetteelu taxawaay ginnaaw bu njëkk beeg ñaareel bi ci topp mooy ndénkaane yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu mu dénkaane mu nekk ci buxaarul mus ak muslim hadisu abu hurayra yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na ida kaana sawmu yawmu ahadikum fala yarfas wala yasxab fa in shabahu ahad aw shaatama falyaqul inni saim ñu bare bari ci jaamu yàlla yi danañ góorgóorlu waaye seeni yool day wàññeeku jaamu yàlla boo gis ñaari mbir moo ci nekk daf koy yàq wala muy wàññi yool yi ñaar yëpp mooy tëndiku fen du yàq koor de waaye day wàññi yool bi sàcc du yàq koor de boo waree ba ngoon nga sàcc sa koor du yàq waaye sa yool day wàññeeku noonu jëf yu araam yu bon yooyu da nga ko war a mooy tëndiku balaa sa yool di wàññeeku woor ba ngoon tëdd di nelaw depuis fajar ba suba yàqu sa koor waaye sa yool day wàññeeku lépp loo xam ne dafay wàññi sa yool woor ba ngoon dugg ci yoo xam ne waroo cee dugg sa yool day wàññeeku lépp loo xam ne nag day wàññi sa tiyaaba war nga cee góorgóorlu mooy tandik moo tax yonent bi ne ci ndénkaane moom yonent mu ne boo wooree kenn ci yéen xëye woor bu mu fi nekk di xuloo ndax dafay wàññi kooram bu mu fi nekk di xastante bu mu fi nekk di wax waxi caaxaan dina ma yéem trop weeru koor leeree nga romb ay grand place nga gis ay kilifa borom kër fanweeri at ñeent fukki at juróom fukki at jëm kaw toog ci grand place su damier di carte di yoote di mariage boo waxee ñu ne fii dafa am loi bu fi nekk ku fi saaga da ngay joxe cent franc loolu ngeen def ak saaga moo yem naka la jullit di waree di mariage naka la jullit di waree di damier naka la jullit di waree di carte te jàkka yi nekk ni di tafsir di jàng alquran allahu akbar waaye seytaan koo xam ne mënul dugg jàkk déglu tafsir waaye mën na dem toog ci grand place damier bi suba ba ngoon kooku na xoolaat boppam li ruslu mooy foo romb léegi ci koñ yi am na grand place paa yi retraité yépp am nañ grand place bu ñuy toog au lieu jàkka ji nekk seen grand place au lieu tudd yàlla nekk seen grand place di naafila di tudd yàlla di jàng alquran te ñooñu ngay gis foofu yépp ñuy grand place kenn ci ñoom mënul liir alxuraan kon foofu buñ fa utoon benn sëriñ bu toog di leen feraloo ij ñuy jàng alifun baawun aba taasa at ba at bi delsi mbokki jullit yi ñooñu danañ liir alxuraan wala duñu liir wallahi danañ liir waaye seytaan ak xel yu lëndëm ak ay bakkaar yu bari moo dal jullit yi tey ba lépp lu jëm ci yoonu yàlla seytaane def ko fàtt démb ci heure bi dama doon seetaan benn émission bu passé ci émission boobu ñu naan Sénégal ca kanam ba gis benn waay bu ñu invité ñu koy laaj muy tont ñu ne ko ndax yéen di ngeen julli mu ne ñun duñ julli lu tax parce que diw sant ñu ñu julli ñun koor nag na ñun duñ woor lu tax parce que diw sant ñu ñu ko waa ji ne ko waaw santaane yàlla ak santaane nit ban lañ war a def mu ne ah ñun daal diw la ñuy topp sant ñu ñu ko duñ ko def mbokki jullit yi santaane yàlla ak santaane nit ban lañ war a def su yàlla ne def leen dañoo war a def wala waruñu def su yàlla ne bàyyi leen dañoo war a bàyyi wala waruñu bàyyi yàlla bu waxee amatul wax imam ahmad nee na isa qaala allah wa rasul fa bil ayni wa raas xam nga lu ruslu yàlla santaane jaamu yàlla julli koor nga gis réew mi ñu bari ci nit ñi lànk bañ a woor su ngoon jotee ñu la ñu langoor langari ci mbedd yi naan dañuy joxe ndogu ndogu boobu ku ko ndogoo dafa haram ku dul julli du woor su la joxee dara nga jël ko li nga jël daaraam ndax moom ab yéeféer la yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne inna al ahada alladi baynana wa baynahum assala man taraka assala faqad kafara baat bi la yonent bi indi waaw yàlla moo santaane julli ak koor kon julli ak koor ku ko bàyyi yéeféer nga ab yéeféer nag boo waree ba ngoon mu jox la ndogu ndogu boobu mu la jox yàlla du ko nangu ndax innama yataqabbalu llah min almuttaqin ku ragal yàlla lay moo lay jox nga jël yàlla nangu ko ku ragalul yàlla su la joxee boo ko jël yàlla du ko jël kon nañ bàyyi xel loolu aka neexoon ñooñu di joxe loolu ñu wooroon ay boo wooree ba ngoon nga joxe ndogu wallahi kenn du la ëpp tiyaaba ci bis bi soo wooree ba ngoon laa wax benn tàndarma nga yor nga xar ko ci digg bi jox ko ki nga dendal wallahi bis boobu kenn ëpp la tiyaaba aka neexoon loolu ñu dégg ko waaye bàyyi santaane yàlla ba pare na nga ne da ngay def lu rafet munatul rafet ndax santaane yàlla ku ko bàyyi munatoo def lu rafet ci kanamu yàlla yéen jàng ngeen alquran yàlla ne maa salakakum fi saqar yéen waa safara lan moo leen dugal safara waa safara lan lañ tont qaalu lam naku min almusallin ñun dañoo bañoon julli kon ku bañ a julli safara nga jëm jàngeen ñu ne arkaanul islam xams ponki islam juróom la kenoy islam li tey islam jàkka ji ñu nekk dal bii ne temm tiim dafa am lu ko téye buñ dindi woon léegi mu mër nërmeelu sunu kaw loolu tey islam yonent bi nee na juróom la bu ci njëkk mooy kennal yàlla ñaar mooy julli ñett mooy woor waaw soo ñëwee ci keno ay keno juróomi keno nga daaneel ñett yi wala nga daaneel ñaar yi li xaw kenn ku nekk ci ñun fi boo jullee jumaa ba pare demal ci sa oto bi nga gaaree ci mbedd mi nga dindi ñaari tànk yi après nga dugg ci nga dawal ko wekkil pono yi laa wax nga dugal ko ci mbaal bi nga dugg ci biir nga ni pono oto bi na daw nga xool ndax sa oto boobu dina daw kenoy islam juróom la soo ci bàyyee benn rek yéeféer nga boo bàyyee ñaar nag kon seytaane bu mu nu nax yàlla moo santaane julli ak koor am mbindeef moomul julli am mbindeef moomul koor am mbindeef moomul ibaada jaamu jaamu yàlla ko moom wa ma xalaqtu ljinna wal ins illa li yabuduun nit ak jinne dama leen a bind leen rek moo tax pour nan ma jaamu kon koor jaamu yàlla la mu ngi nii di ñëw taxawal bu baax ci sàmm sa koor bu mu yàqu woor toog di seetaan ay film woor di seetaan football woor di seetaan làmb woor di seetaan doo ci jële lu dul xiif ak mar ndax yonent bi moo ko wax rubba saaimin fa laysa lahu min siyaami illa aljuu walatash ixwat aliman aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله الوقفة الرابعة نينتلو تخواي هذا الشهر هو شهر التوبة وير ويدو نيو سونو كانام وير توب لا وير نا جيغي سي يونتبي عليه الصلاه والسلام ان الله يبسط يده بالليل حتى يتوب موسئ النهار ويبسط يده بالنهار حتى يتوب موسئ الليل حتى تطلع الشمس من مغربها ورنا جوجي سونو يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم منه سونو بروم سبحانه وتعالى day tàllal ay loxoom guddi gu nekk pour defkatu bàkkaar yi tuub bëccëg bu nekk yàlla day taalal ay loxoom pour defkati bàkkaar yi bëccëg yi tuub mu ne noonu la yàlla di nekkee noonu la yàlla di nekkee ba ñu xëy jant bi ñu gis ko mu fenk ci sow fii nu nekk nii di wax jant bi fan lay fenkee ñun ñëpp xam na ne penku lay fenkee bis bu jant bi xëyee fenke sow ku tuub yàlla du la baal kon nanu tuub weer waa ngi ñëw weeru tuub la yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na su nit amoon bakkaar ba mu tol ne vaggi géej zunubul aalami kullil aalam yàlla dina ko ko effacer ci weeru koor bu fekkee dëggu na naam naam yaa ibadal yaa ibadi yàllaay woote yéen sama jaam ñi innakum tuznibuna billayli wannahaar yéen a ngi may tooñ guddi ak bëccëg wa ana axfiru zunuba jamia man nag damay baale ay bakkaar ngalla waaye fa tastaghfiruni aghfiru lakum jéggalul leen ma ma jéggal leen kon weer wi jëm weeru tuub la sikki nekk ci ne amul kenn ci ñun fii tey ku fi toog lu dul yaa ngi fees dell ay bakkaar yi dul yaa ngi fees dell ak ay tilim tilim sa digganteeg sa boroom xam nga yàlla xam na balil insaanu ala nafsihi basira amul kenn ci ñun ku set ñun ñëpp a taq ñun ñëpp a tilim sunu digganteeg sunu borom dafa lëndëm kon yàlla baaxe na nu mu ngi indil weer woo xam ne buñ ko ci tàllalee sunuy loxo moom yàlla mu jéggal nu yonent bi nee na nu tuub yabnu aadam innaka ma daawtani wa rajawtani illa gafartu laka ma kaana minka wala ubaali yonent bi nee na yàlla nee na yow doomu aadama dooma woo mukk dooma yaakaar mukk lu dul man yàlla subhaanahu wa taala dinaa la jéggal li dox sama diggante ak yow kon li fi nekk mooy nan woo yàlla nan ko jéggalu nan bàyyi rëy nanu tuub li gën a yées ci nit mooy nga rëy sa diggante ak sa borom yàlla ne la defal nga lànk ne doo def mu leer la ne waar nañ la wax nañ la ba nga xam ne lii danga ko war a def nga rëy sa digganteeg sa borom loolu moo daloon iblis iblis dara yàqalu ko lu dul rëy aba wastakbara wa kaana min alkafirin yàlla wax na iblis yow iblis ma manaaka an laa tasjuda is amartuk lan moo la tere nga def sama santaane bi ma la ko santaane iblis doon na doy rek mu ne yàlla baal ma dama juum daal di def li ko yàlla wax waaye yàlla nee na aba dafa lànk wastakbara mu rëy rëylu yàlla nee na mu tànn bokk ci yéeféer yi wa kaana min alkafirin kon bu nu rëy nanu tuub nanu dellu ci sunu boroom yàgg-yàgg sunu lànkee sikk nekk ci ne danañ dajeeg moom dafay yàgg guddi la bëccëg la wallahi mënunoo rëcc lu dul inna lana yawman laa budda an nalqa allah wallahi bisa ngi ñëw il faut dañuy dajeeg yàlla mununoo daw wa ma antum bi mujizin fi l ard wala fi sama du ci asamaan du ci suuf kenn munu rëcc yàlla kon nan leen tuub dellu ci yàlla juróomeelu taxawaay am na mbir yoo xam ne dafa am importance ci weeru koor wa min al umur al muhimma allati yanbaghi a saxs an yafalaha qabla hululi ramadan dafa war balaa weeru koor ñëw kenn ku nekk ñun nga jàng lan mooy defar koor lan mooy yàq koor lan mooy sunnaay koor lan mooy faratay koor lan mooy lan mooy lan mooy lan mooy ngir sa koor baax mbokk yi nit lu mu xamul munu ko def lan moo tax nit ñi seen jaamu yàlla yi mënut a baax parce que xamuñu ab jullit su jaamu yàlla jotee da ngay laaj jaamu yàlla gii ñuy def lan moo koy yàq ñu wax la ko nga moytu ko lan moo koy defar ñu wax la ko nga yàq nga nga def ko waaye jaamu yàlla goo xam ne xamoo ci dara yow daal li nga xam ci jaamu yàlla bi mooy bu ñu noddee fajar asalaatu xayru minan noomi de bu lekk bu noddee timis dogal lii la nga ci xam bu noddee salaatu arrêté nañ bu ñu noddee timis ndogal rek boo paree rek jël sa benn crayon am nañ benn fan suba ñaar ñett ah léegi mu jeex de ñeent am nañ juróom de loolu nga ci xam loolu dafa ruslu ab jullit day xam lan mooy farata koor lan mooy sunnaay koor lan mooy mustahab lan mooy mandu lan mooy makruux lan mooy xaraam su ko defee nga góorgóorlu te loolu xam ko lu yomb la téléphone boo fi jël jokkoo ak borom xam-xam asalaamaaleykum damaa bëgg nga wax ma yan mooy farata ak koor da ngaa jàng français mu wax la nga bind ko. jaana da ngaa jàng wolof mu wax la nga dégg ku baax comprendre ko lan mooy sunnaay koor lan lañ bëgg ku koor mu def bis bu nekk boo ci jokkoo ak benn borom xam-xam mu jox la juróomi mbir bis bu nekk nga yor benn kaye bis bu nekk nga bind juróom bu weer koor gi jeexee nooy def borom xam-xam ngay nekk. koor kenn dool ci la waxati loo xamul waaye déedéet loolu yitteeluñu li ñu yitteel mooy wirdu boo xam ne boo ko wirdee nga am junni waaw julli ñaari rakk yoo xam ne xoolal day gis weeru koor koo xam ne du sàmm kooram du def dara am na nit ñu ñeme yàlla yoo xam ne danañ joxe ay ñaan yoo xam ne dara wéru ci nga gis nit ñi di ci sonn bàyyi farata yi ñaari rakk yi soo ko defee ah rakk bu nekk nga jàng juróom fukki junni qul huwa allahu ak ñeenti tabat yada danañ la baal danañ baal sa baay danañ baal say goro danañ baal say sët danañ baal say maam danañ baal seen famille yëpp loolu fan la am li tax nga dugg ci loolu mooy xamoo loolu amul fenn wala soo jullee àjjuma gu mujj ci weeru koor li nga julliwul woon ci àdduna bi yëpp yàlla dina la ko baal loolu fan la am mbokk yi loolu bu amoon ñu njëkk ñi du ñu sonn dañuy toog ba bëlóoru jot rek ñu dem def ko toog jàpp seen jàmbur waaye dañoo jaamu yàlla ba seen oom yeeg seen jëyi dereetal ñuul kukk boo leen gisee yàlla nee na siimaahum fi wujuhim min asari sujud dañ leen jaamu yàlla juróomi taxawaay yii la ab jullit war a taxaw ci weeru koor nanu góorgóorlu balaa weeru koor jeex ñu jàng lan mooy attey koor yonent bi nee na man yuridu llahu bihi xayran yufaqihu fi diin man yuridu llahu bihi xayran yufaqihu fi diin ku yàlla nammal yiw yàlla day ubbi sa xol bi daal ci def diine déggloo ko wa axiran ayuha al ahbab allahuma balligna shahru ramadan allahuma balligna shahru ramadan allahuma balligna shahru ramadan اللهم وأعتقنا فيه على الصيام والقيام وأعنا فيه على الصيام والقيام واجعلنا فيه ووالدينا من أتقائك من النار اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور mbokk jullit yi bu ñu paree julli am na benn mbokk jullit bu jigéen bu ma yónnee fii benn ordonnance am ordonnance bi quatre-vingt mille et quelque la ndaw saa ngi hôpitalisé hôpital Dantec benn magam bu jigéen moo ma indil kayit gi fii balaa may dugg ci jumaa ji ñoo ngi ñaan mbokk jullit yi kenn ku nekk ci ñun lu mu mun a am mun koo fàtte ngir yàlla ngir dimbali mbokk moomu mu def ko ci biisnillahi tabaraka wa taala yàlla mooy fay te insha allah yàlla ko lebal mu fay la wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah huwa xayran wa azamu ajra suñ jullee ba pare lu ci waaye mun mu def ko qumu ila salatikum yarhamukum allah